kii nu ma ko du ko wax damay bañ kii sàcc ko ak ñeneen ñu taxaw pour xaar waaw ñoom laa koy nëbb kontaan rek wax dëgg yàlla di sant jéeb bu baax a baax ak abula xaat amuñu seen fay wax dëgg yàlla yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay ci bàkki sëriñ Saali kontaan nañ torop wax dëgg yàlla mais ni nga def garaaw la. dama koo xeeb moo ne si suba rek laa xawoon def nii rek di tiital gars yi yaa ma gën a xam. waaw si suba la gënoon garaaw nii dama koy dama koy lii weer relaxé yaa ma gën a xam. des na beneen des na beneen. waaw bu ñu ñëwee lañ koy biisaat. dëgg neexul. kon bii du mooy dem instant. biram xarit biram naar mi moo ma waajal kii ku mu waajal mu jël pie bàkki yonent bi bàkki sëriñ Saaliw kii mooy jëkkëru jëkkër ji maa ngi ñaan ci bàkki sëriñ Saaliw yàlla na ma yàlla bàyyeeg moom loolu rek laay ñaan ku ma bëgg daal képp ku fi teew na ma ñaanal yàlla na ma yàlla bàyyeeg sama borom kër bi loolu rek laay ñaan social bi muy def da ko see fekk avant muy def social bàkki sëriñ Saaliw billaahi wallaahi kii bu ñu daan setaan grand cœur danaan ma changé ko man du ma setaan affaire yu toog ba si yàgg may wan kaawa bi dama naan ko lii bu ma ko wan yow boo yaa dem bay xool lii daraan jooy ba du ko mën a téye si biir néeg bi bàkki sëriñ Touba kon kii yàlla su ko fayee xolam lu raw lii dina ko am yàlla na dund ak jàmm bañ koy tuddee nag combat yu mag a mag yi lii nii dafa guñ dara de bàyyi ba yu mag yi boobu lay gën a. kon daal Fadel Dakar Buzz daal mooy sarabu mooy sarabu ndëpp. bàkki yonent bi mooy sama lépp. mooy salaam moo ma teree dof. moo wax loolu waxal. kii moo ma teree dof bàkki yonent bi biram xarit biram naar saa jaaloo waale ma kii moo mooy sama lépp. Eh. xalaat rek moom la. ñu ngi ay ah. eh, waay aawa man maa aawa biram xarit biram naar Sall baa joojo sama jëkkër ji nga xamante ni sàggalewu ma ñang xari xam ne rek maa jur tubaar tubaarkàlla nag muy sama sama jëkkër di sama xarit baax lool biram xareek biram ñaar xàmmee ma ràññee ma tubaarkàlla macha allah maa yaayu ndey laam ñoo bokk ndey ak baay mooy taaw maay caat waaye kalla sama sët bi maa ngi koy ñaanal yàlla ci barke Cheikh na Cheikh. noo tudd man ajaratu ca Yacine Mbaye. Yacine mooy yaay Modou Mbuub. maa maa ngi koy ñaanal ci barke Cheikh na Cheikh Saad bu ma yaakaar. fi mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngeen na ndax da ngeen a fekk may waaj a dem salon demago nga ngeen di jël sama ñaareel te loolu at warul waaw maa ngi lay ñaanal biram xari yal na nga sut say maas ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ràññee nga ñu xàmmee nga ñu bëgg nga say bokk bu nee diwa baax ñu na laaj leen bokk waaye biram xari yal na nga gudd fan jërëjëf salaamaaleykum maaleykum salaam ñoo ngi lay ñu ngi leen di fay bu baax a baax. di leen jox seen wàccuwaay. di leen ziar bu wér a wér macha allah di kontaan nag ci bis bi lool macha allah laf cat ñoo ñaan rek yàlla nañ fi ñëwaat ñëw jàmm ak salaam. bis neex na bis sedd na xol waaye bis bi moo gën a seddati suñu xol ndax lu yëngul lu ne rek la ko yëngal ko ëpp doole te Anta nag macha allah day magu njëkkante. mag ju baax mag ju ñu yéene mag ju ñu fonk donc bu ñu yónnee dañuy daw ba daanu ca ñag ba mu yónni ñu ci doomam yónni ñu ci xaritam yónni ñu ci rakkam ndax li ñuy wax bëgg neexul bëggantee neex ma ànd seeg nag sama sœur Ndiaye Sey mook Anta Sey bokk ndey baay kii doomu Anta Sey la njaxana ndooy Awa Cheikh mi ngi nii mooy caat mook Anta Sey bokk ndey baay man may rakkam nag mu féetewoo ma depuis xale macha allah mu ma saf ko mu saf ma daal en grosso modo ñi ngi leen di ziar di leen nuyu di leen fóon fóon yu pata nun koy waxee di wax rek ni kontaan nañu mu yónni ñu nag ci doomam Fadel Anta nee na bu bu bu bu bu bu naka lañ koy waxee sax bu yoon jeexul waaxusul du jeex nee na nag pour une première nee na day ñëw ci yow ak lu mu xeeb nee na ndax ku ne xam na diggante ku ne xam na yëg-yëg gi nga am ci moom bëgg gi nga am ci moom nee na di nga waxtaan ak moom di nga diisoog moom di nga waxanteeg moom loo xamante ne amaana sax doo ko waxanteeg sa waajur bu jigéen Anta ma wax de te ku ne xam na ni itam jot yombul te tey dimanche la ñun ñëpp dañu am ci lu nu jàpp mais sa bés bi rek moo nu jaral dérangement ak déplacement ñu ngi leen di ziar di leen gërëm di leen sant macha allah di la wax ni nag ñun ak yow ba stade ba boo taayiwul rek incha allah du nu taayi jërë ngeen jëf macha allah. soxna si ñoo ngi lay nuyu. damaa mënul bañ a dem rek. te waxuma ci Fadel. ndax day denc suñu doom muy Binta. ndey ku ma caamay yaayam. ah Yamar Faye baayam Badara Faye baayam. Maguette ña nga yaayam. Mbodja Mbaye mi taxawaay yaayam nday maram ñag mii ñu jógee nag ba Kër Massar ànd ak yaayam ñëw ci Fadal mii bi ma ko setaan Dakar Buzz xaw ma woon moo gën daañu sëy mu doon suñu góor nag doon jàmbaar di dox ci social li muy def nag ñëpp bëgg ko man soxna Mbodja Mbaye maa ngi lay gërëm di la suñu doom suñu xol sedd na ci moom buñ ko gisee tey jii xam nañ ne soppi woo ko njaago mi wër di fóot da nga ko tarkal yor nga ko ni ko war a yore bëgg nga ko bëgg ngay mbokkam tarkal la kontaan nañ sunu xol sedd na waa Dakar Buzz li rek laa ñëwoon pour seede ko ci Fadel di la wax nag sama càmmiñ la sama xarit la képp na ku may xaas ci dëkk bi na xool ci moom waaw kay décourage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 loo xam ne teguma ko sax muy nit ku baax may ñaan yàlla boo tàggul teraanga yàlla sa jàmm yàgg mais lan la maa gërëm bu baax sama néegu baay bi nga xam ne dan maa jàppale daba jaaj maa ngi lay gërëm di gërëm sama mag ji du sama baay la ji li ma bëgg mu sànni ñaari baat ndax bu say sama baay taxawoon tey mooy wax kon ji li foo nga sànni ci ay baat papa ñu ngi lay nuyu waaw ah, ñoo sant an yëg-yëg nga am tey ci di ko yéenal jàmm fu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal jàmm moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal mu nekk rakk duñu fonk du ñu kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokkal euh, euh, xam yër kiyam kontaan nañ ci moom gërëm nañ ko xol sama xol sedd ba mënu maa wax lépp lu moo kii xamoon xamante ne ma ko def sama xol sedd. Anta Seye depuis Amérique dafa yónnee sama kat délégation bu am solo. di gërëm a Cheikh na di gërëm képp koo xam ne déplacé goo jëm sama kër Anta Seye ma nga Amérique waaye dafa yónni ay séeram lu bari jox ma xaalis bu bari may ñaan Anta yàlla defal la jàmm yow sa doom Omar te yàlla yokk say xéwal waaw. dinaa ko jàpp muy moom it di ko teral ndax yow. soxla wuñ ku ñu wane waaye yow doom milliardaire mais nit soxla. gis ma dégg. yoo xam nga li ñu boole bu baax. wallaay xam naa ko du ay milliards du ay millions tamit. mais xam li ñu boole mooy sa jëf. dama mbës nga bàyyi sa lépp ñëw. yow boo xooloon ba kiri koro dañuy dik moo tax sànq moom mi ma ne ko xoolal dañ lay jàppale bu baax. Assane mu nekk lu am solo. madame ñu ngi lay. la la di gërëm Assane. Assane Fall waaw. bàyyi lépp ñëw xool gi ay Thiès door jox ma. yëkkati kii mënu maa wax ci moom. mu koo xam ne damaa ko Assane li nga sol daal bu ne ma ñëwul sama ma daggal la ma ñëw mu dagg Thiès door jox ma dagg beneen tissu jox ma ma li ngay wut ci métier bi yàlla na nga ko am Baye Fall nga taalibe nga nit ko oyof nga nit ko modeste nga li nga def rëy na ci man lool yàlla boo tàggewu teraanga booy lebel lebelal gor nag lebel nga koo xam ne bis bu la nga xam ne dal sa kaw yàlla na sa di gërëm Issa Laman Thiam Cheikh Malick sama jarbaat jóge ba Espagne ñëw ngir bis bi Birama ngi ne ñëpp di ngi noonu ñu ngi koy nuyu madame nuyu naa la fay naa la madame at bi ñaata yoon moom at ba at nga ñëw ci billaahi faral moom mooy indi làmb ban yëg-yëg nga am tey ñu tuddee sa jëkkër drapeau nga ñëw stade jàkkaarloog askan wi yëpp xanaa kontaan rek dégg lool fu nekk ni sama xol dafa fees mu du ma wax sama xol daal dafa sedd maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm rek chaque jour à chaque fois damaa kontaan lool wallaahi ñu leen a fay yéen sonn ngeen yéen tamit son ñëpp daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant bég na premier daal dégg naa yaay aaw ba ñeenteel maa ngi nii